Happy yang bolong. Bokk yi ñu jox Mame Balla Mboup kàddu gi ndax moo seet ak Balla Baye Balla kàddu gaay. Njëmba yee njëmba. Bante loolu. waaw mbokk yi ñu may ñu tuuti déglu rek ndax yaakaar naa ne képp ku fii tey bëgg nga dégg ay kaddu Balla Gaye numéro 2 yi nga xamante ni bëgg na ko wax jëmale ko ci magam Lirou Diane kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaan bu baax a baax. ndaxte ñu ngi ñëw ñëw yëpp ñu ngi bitim réew ñu ngi képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan à travers internet bi mbokk yi tey bés bi nag li ko waral mooy liiru jaan dafa am bés bu mag tey bu tudd bi am tey fii ci Guédiawaye ñu ñëw teew ci tur bi ànd ceeg Balla Gaye numéro 2 liiru jaan jël doom di tuddee magam tuddee rakam tuddee soppeem Balla Gaye numéro 2 muy lu ak lu làmb jëpp rafetlu muy lu réew mi yëpp rafetlu gën a di teew nag tey dina taal boobu teewul Balla Gaye numéro 2 mi ngi nii toog Balla adduna yëpp yow la ñuy déglu ah. kon du ko atal nga toog nga ketal ni sa xarit bu amee tilim na ketal madame Ndiéri Diane ay jëf madame Lire Dial ñi ngi lay nuyu di la jaar maa ci jaam kay euh ni nu ko waxe bekté bu lay ngay am tay ci bis bi nga xamne ak mom yeen ko lan ngay wax ñi lay sétal ngi sant di nuyu bi defal sama di ñaan ñaanal fii ñu ànd fii ànd leen gënal fii daal. Hmm. di sant sama jëkkër bu baax a baax a baax a baax. oo ma fayam man doom ju ma am teral na ak Serigne Touba bii mooy sama ñeenteelu doom sama jëkkër wax dëgg yàlla bëggul lu ma metti su ma meree mu mer su ma kontaanee mu kontaan barke Serigne Touba fagal na ma siggil na ma barke yeneen bi jooyu ma yaay jooyu ma papa mat na ma yaay mat na ma papa di ko sant di ko gërëm mu dund ba doomam yii di ko dara barke Serigne Touba woo ma lu ma metti si moom billaahi wallaahi dama koy ñaanal mënu maa wax nga wax lan ci Balla Gaye mi nu tuddee ah Balla ak Ogué samedi dimanche wóor na a dama koy sant di ko gërëm moo bëgg sama jëkkër sama jëkkër bëgg ma Balla Gaye su doon jigéen damay fiir ndax sama jëkkër bëgg gi ko bëgg barki yeneen ci bi oo ma fayam Balla Gaye oo ma fayam ndax sama jëkkër te man bëgg sama jëkkër ma bëgg la tur bii mu am nag du sens mérite la barki yeneen ci bi Ouzin mën naa am téeméeri doom tuddee ko ko di sant jéy di sant jabaram jéy barki Serigne Touba ba ma amee doom bàyyi ma xaat bu bëri la yëkkati may ma ko a la boo may rek man daal moom ma fayal. daal kon bëgg nga. kontaan naa ndeysaan kontaan naa du ma dugalee. waaw waaw. sama mbokk yi waaw. di sant samay njëkk di sant samay goro. Mm-hmm. di sant samay peccor ga di sant samay mag yu góor yi fi ñëw di sant mboolem ñu fi ñëw bàyyiwuma kenn di sant jabaram ji nga xam ne yàqu si dara su ko yàqoon mu yàqu ak ñaareelam ak ñetteelam ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm mm. mboolem ñu fi ñëw rek sant naa leen gërëm naa leen merci beaucoup waaw di sant nag maire Gaar ma ko Angleterre yëpp na xaar bu bëri may ma ko wala mais Khadim ñëw na ci xew mi de <laughs> waaw loolu du ko yàqu <laughs> ñaari njaayeen lañ ah. madame nuyu naa la lan nga yëg tey ci bis. waaw ah, kay kay kontaan kay kontaan xam sama borom kër. lii du ma nëbbulee. sa digganteeg liiru tey. ànd bi fan la dooree. ànd dox dox doxandoo moom daal 2002 ba tey dara ñaaw barke Sëñ Tuuba. wallaahi bi fasal na ma tiggil na ma man na ma yaay man na ma papa. bi fas yéey nii ba ma amee doom Fatou bëri la yëkkati ma yem ko barke Sëñ Tuuba oo ma fayam di sant ñëpp. nitu jàmm la nitu salaam la ñun ñëw ko bëgg. jàmm rek la. sooy ak moom jàmm kese la gisuma ci lenn lu neex. na woy liir comme liir comme liir jàll jox. oh eh, oh eh, eh, bañ liir la joxe ci làmb ji yow nooy woowee liir. kii mooy sama taaw. ah taaw di sama di ah. sama papa di sama yaay. ah taaw sama yaay. eh waay sama. sama yaay sama yaay. ndax lu tax sa def dafa neex digal mu nekk monument di géej waay soxna si amuñu fayam muy dégg lu ne mën muñ nangoo yaatu kenn du ko dégg benn problème bu nekk dama bëgg jigéen ñëpp ñu roy ñu mel message très fort message la bëgg ñu mel sama kër ñu nekkan ak ci ko neex parce que kenn du ko dégg ci dara

yéen damaa bëgg soo dugalee bii bi ba noppi ñu rasulullah nga jël koo xam ne kenn daal ci sa tànk ban lan mooy si jikko al-salaam sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam waxaan rasul salaam nee na al muslimu man salima muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ñu ko rasul kenn billaay yow kenn looloo kenn looloo kenn xanaa koo dul lamb ja la. yow kenn xam nga alxuraan. yow ne ku def lu baax dañ koy wax da ngaa bëri jom ba caabi làmb réeré yaa ko for da ngaa bëri jom sama xarit bi ma yàlla bu musuma laa woo nga ni ma tiit. yaa bëri jom dina mer dina ma dëggal mbokk day Balla Gaye de ku baax ku bëri jom ku def dee ku deful doo dégg dara ku xaay ñor na su baax jom tudd yabu ko zone la laal mu tardé yóbbu ko ca zone ba la maa la ko wax. waaw moom la woo lépp lépp allo champion. sori naa mu daal mais ah. nga dégg de. Wow. Pili lubian ini nomor nomor tu berapa? Pak. Hmm? tey bëri woon na doxal daal. Thank you. Touba ñooñu ñooñu doon na génne waaye bari jom waxoo lu ñaaw lu baax rek day wax barke Serigne Abdou Karim Mbacké yaa baax yaa bari jom mais ku def ku ne ku doon dégg dara barke Yàlla ngi Fallou Mbacké yaa baax yaa bari jom yaay champion yaay naanaan yaa gëm sa bopp yaa jàppale say man jàppale say rak jàpp yow ci réew bu dee yàqoon na àgg fa yaa mën tuut yaa mën yaa mën doole yéen a yem doon nga laal mu dar na yebu la sant yow barke Serigne Touba Mbacké jàpp yow ci réew du ma bàyyi mukk sama mag sama xarit bokk ndeyam Dieng Seck bokk ndeyam Alaaji Fallu Mbàkke yaa baax yaa bari jom barke Serigne Touba Mbàkke bàkk ba risul Alaaji Fallu ris ba Abdourahmane Mbàkke bàyyi Serigne Afiya bàyyi Sidi Bou Karim yaa baax borom Daaru Salaam buur sama mag bi yaa tax gannaaw boobu yàggul xam ne alaaji Fall weex na laaj alxuraan bi yóbbu ko yàggul maa ko mu dee nga mu der yàqu aado fa foofu laa toog barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke liiru jaan doomi réew doomi mbër lu xam ne mu ne baayam bokk doy mbokku dee dee si nekk daanaka si li toll oo ko jox loolu jaadu tàmbareem maa ngi wax kenn waxu xale la. waaw bu jël yàqu la ànd ko. boo jëlee coono da koy jox ko téye yaa baax yaa bari jom képp yow su dee mbokku dee dee ak mbokku dee buur waaye ci bi. jooy de. Thank you.